الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala ci dajawaat ci néegam bu tedd bi nga xam ni yàgg nañ ko ñaan yal nañu fa delloo ba ñu mën a tiimaat ab téeréem di ko jàng njàng moomee nga xam ni suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bégal ni ña koy def ni yàlla dana yónni ci ñoom ay malaakaam ñu wër leen mu wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem san di leen gërëm ca malaaka yu kawe ya ne fa moom ñi ngi ñaan yal na yàlla boole ci suñu jataay bi mboolem ñi nga xam ne nii it ñoo koy nar a déglu gannaaw ba yal na yàlla boole ñoo ñoom ci ñi nga xam ne seen xol dafay aju ci néegu borom ba ñi ngi woon ci suuratu nuur ba yegg si woon ci aaya ñaar fukki bi ak ñett ci suñu borom di waxe ni inna lazina yarmuuna almuhsanat loolu kon mi ngi noonu di suñu ñetteelu daje ak saar bi ñu bàyyi kon ak Cheikh Ousmane barakallahu fiikum suñu boroom subhanahu wa taala mu ni inna lazina yarmuuna almuhsanaat ñi nga xam ne ñooy sànni ña fegu ay di leen jiiñ ak njaaloo almuhsanaat yaa ngi ko gis fii mu nekk jigéen ju fegu donte ne muhsanaat dana firi jigéen ya am jëkkër ba suñ borom waxee ñim araamal ba pare teg ca wal muhsanaatu min an nisa mooy jigéen ñi am jëkkër almuhsanaat it dana firi gor mi ngi noonu ca jigéen ña kon muhsanaat jigéen ñooñu fegu alxaafilaat sàggane mboolemi góor bu dul seeni jëkkër almuminaat doon ñoo xam ni ñu gëm yàlla lañu ñooñu leen di tuumaal day lo'inu fi dunya wal axira dañ leen rëbb ci àdduna ak alaxira wala hum azabun azim te dana leen ñeel mbugal moo xam ne mu màgg lay doon yawma tashhadu alayhim alsinatuhum bis ba muy seede ci ñoom seen lammiñ ya wa aydihim ak seen loxo ya wa arjuluhum bima kaanu yamaluun ak seen tànk ya ci lépp lañ nekkoon di ko jëf yawma idin yuwaffihim allahu diinahum alxaq bu keroogee day yàlla dana leen matalal seen payub dëgg ba wa yaalamuuna anna allaha huwa alxaqu almubin ñu xam ne yàlla mooy dëgg gu biir gi gu leer gi alxabisaat jigéen ñu bon ña lil xabisiin dana ñeel góor ñu bon ña wal xabisuun góor ñu bon ña lil xabisaat dàññeel jigéen ñu bon ña wa tayibaat jigéen ñu teey ya li tayibiin dàññeel góor ñu teey ya wa tayibuun góor ñu teey ya li tayibaat dana ñeel jigéen ñu teey ya ulaa'ika mubarra'uuna mimma yaquluun ñooñu day ñu ñu muccal la ca la nga xam ne saay saay sànkay wax lahum maghfiratun wa rizqun karim dana leen ñel njéggal ak wërsëg woo xam ne wu tedd la yaa ayuha alladina amanu ey yéen ñi nga xam ne da ngeen gëm laa tadxulu buyutan gayra buyutikum bu leen dugg mukk ay kër yu bokkul ak seeni kër xatta tastanisu lu dul ne da ngeen yéglu wa tusallimu ala ahliha ngeen nuyu ca njabootug waa kër ga zalikum xayrun lakum loolu moo gën ñeel leen laallakum tazakkaruun ngiree ngeen doon ñoo xam ne ñuy mën a fàttaliku lañu mi ngi noonu bokk démb lañ jàng histoire bu bokk ci li gën a triste ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal ca soxnaam su tedd sa Aïcha doomu ku dëggu ko muy Abu Bakarin Siddiq suñ borom wax ca lam ca waxoon ba bi ñuy mujj a jàng abubakar mer na ne lu tax kii di mistah di wax ci Aïcha ca moom moo ko yor dootu ko defal dara sunu borom nag ne déet yéen borom yi ngëneel yi tooñ yi ñu leen tooñ boom tax ngeen arrêté njëkk gi ngeen doon defal njëkk ndax ba ngeen di def njëkk ga bu dee yàlla rek a tax tooñ gëm leen tooñ bu mu tax ngeen dagg njëkk googee waaye loolu suñu borom wax ne jéggale leen de yàlla koy jéggale la teewul nag ka nga xam ne moom daa continuer sax ci loolu suñu borom mi ngi ñuy wan fan lay jaar ak moom yowmal qiyaama moo tax mu ne ñi nga xam ne dañuy tuumaal jigéen ñu fegu ñi sàggane mbooli mi góor bu dul ñoom ca mbokk loolu la yàlla boole mohsanat ghafilat fegu nañ ci njaaloo kenn mësu leen gis ñu ànd ak góor ak jàmbur mu safaanoo ak jigéen ñi nga xam ne yàgg góori jàmbur yéen ngi ànd ci yéeg ci oto yay dem di dugg ci hôtel ya di ànd fu leen neex mbokk kooku boo ko miñal ghafilat mi nga noonu kooku ku ko tuumaalit bokkul ñu yàlla di rëbb fii donte ne yow julit bul tuumal kenn waaye ghafilaat mu boy mu mu jara bàyyi xalit lu bari ci jigéen ñi rawatine driyanke sénégalaise jàpp nga ne yaa war a neex deret neexi ree sa góori koñ sa góori service koo dajal kenkeng ree tooñante nangam mbokk l'islam gërëmut loolu même bu ko sunu société gërëmi góoru jàmboro dafa am foo war a yem ak moom mooy la suñu borom wax ne wa qulna qawlan ma'rufa da ngeen siq mbir bi ngeen ci biir àdduna siq leen ko commerce la wax la siq leen ko mu jeex amma toog kenkeng ree tooñante loolu ak góori jàmbur abadan islam nanguut loolu ghafilat da nga war a sàggane mbooli mi góor suñu borom yàlla nag ne jigéen ñu mel nii day ku wëlbatiku nag di leen jiiñu njaaloo rëbbees nañ la kan moo la rëbb yàlla rëbb na la ay malaakam rëbb nañ la nit ñi baax ñi rëbb nañ la ca boo tuubul mbugal mu màgg mi ngi lay xaar ca mbokk mbugal munta màgg ba dab la nga xam ne mooy sawaro borom boobu subhanahu wa taala di wax kañ lay doon bisa ngi ñëw suñu borom yàlla waxloo seen làmmiñ ya ca mënuñu ci dara seen loxo yi di seede di wax ca mënuñu ci dara soo delloo ca suuratu zuxruf da ngay dégg dañ xuloo ak seeni cir li ma shahidtum alayna lu tax ngeen di nekk di nettali liñ doon def ca mag yéen àndu tabbi sawara su ko defee ñu ne hey antaqana allahu alladi antaqa kulla shay sañu ñoo bañ a wax yàlla moo ñu waxloo ak a jaaxaloon suñuy maam ay waay ak a jaaxaloon suñuy maam ab loxo nu muy waxee tànk nu muy waxee waaw maam ya ku leen génnee loon ne leen xotti gii day li ñuy wax yépp mi ngi koy déglu te fii ak fukki at mën nañ ko koo laaj mu netti lu ko waat sëqtadee sax du ko bàyyi ndax dañ ko gënam dañ ko gëm duñ ko mën a gëm duñ ko mën a comprendre te lii ab jaamu yàlla ko defar ana yàlla mi borom jaam yi ngal la waay mbokku jullit xamal ni sa làmmiñ ñuy loo ci ma sa wax yowmal qiyaama dana ko répété mu neex la ak mu neexul da ngay gis fii ko daanu rab di jabatu di wax ay histoire yu kenn xamul bis bu wéree buñ ko ko laajee xamu ko sax doo sañ a bañ lépp li nga daan wax loxo yi dana taxaw di seedaloo daan jëf tànk yi day seedaloo daan jëf loolu it moo tax ba ñooñu jaaroon fu bon bañ seede leen lu bon suñu borom nee na mbugal bu rëy moo leen di xaar waaw contraire ba nag mbokk ana koo xam ne làmmiñam dana taxaw yowmal qiyaam seede des millions de fois yu mu sabbal yàlla sant ci yàlla màggal ci yàlla jéggal ci yàlla loxom yi seede lam daan def ca njàpp ma ca julli ga ca sarxe ya ca nangam ya moo taxoon yeneen bi alayhi salaam daan wax ci gine sahaaba ya aleykum ne bi tasbih wa tahlil wa takbir bari leen fu ngeen toll subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar waqudna bil anamil waqudna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun yawm al qiyamah nee na bu ngeen dee wax zikr da leen wax subhanallah alhamdulillah allahu akbar di lem seeni baaraam baaraam yi yowmal qiyaama lépp loo mës a jëfandikoo ak ñoom daañ ko nettali ci kanamu yàlla gis ngeen daañ ko nettali ci kanamu yàlla looloo tax mbokk jëfandikoo leneen looy compter loolee xëy na beneen mbir la waaye xamal ni la gën ci li ngay tasbiha mooy say baaraam yi nga xam ni moom buñ lay suul kenn du wax nañ jëli lam doon compter bu dugal ci bàmmeel bi déedéet moom baaraam yi ñooy àndagoo ci bàmmeel booy dekki suñu borom mu ne bala qadirina ala an nusawiya banaana borom bi mu ne ku nekk am naa kattan delloo la sa cati baaraam yi des siècles après le informaticiens yi doogoo gis ak scientifique yi ndekete cati baaraam yi kenn bokku ko kenn moo tax booy dem léegi sa portable bi bu la neexoon nga vérifier ko par empreinte yow rek yaa ko mën a ubbi Sénégal gépp buñ daju mën ko duñ ko ubbi waaye yow boo teg sa empreinte rek mu ubbee ko loolu mooy am ci carte d'identité yi am ci passeport yi loolee kon mbokk ñu bàyyi ko xel bu baax borom bi nee na lu way jëf yowmal qiyaama dana ko nettali ci ay ciram dana ko nettali ci kanamu borom bi fii daa yem ci der bi ak loxo bi ak tànk yi waaye dama la zuxruf wa juluduhum zuxruf der bi la yàlla wax ay fu der nekk dana wax kon gannaaw gaag ndigg laag fay baag lépp lu mu mën a doon ñu ngi noonu borom bi subhanahu wa taala mu ne keroog nag lañ leen di fay seen fayu dëgg mbokk àllaaxira ki def ak njombe am na loi buñ ko war a teg waaye loi boobu teg nañ ko comme teguñu ko ko bu ko tuubul fay gam ye yoo dëgg-dëgg yowmal xiyaama la koy xaar diinahumul xaq keroog nag la ñuy xam ne yàlla mooy dëggu gu bir gi ne lu mu digee def ko jàlla wa ala borom bi nag doog a wëlbati ko ci ne xam leen ni góor gu baax buy jógee di uti soxna wóorul wuti lu dul soxna su baax ndax alxamisaat jigéen ñu bon njaalookat kenn du nekk ak moom lu dul ku bon na ñoom loolee mbokk aaya bi bi mu wàccee aaya bi biñ koy jàng kenn ci buur yi l'islam yi Abdul Malik ibnu Marwan mas la toog ci jataayam benn ci waa Shia yi ñu indil ko ko ne ko kii day da doon xas yaay Aïcha mën a rey leen ko gaa yi rey ko ko mais ah amir li nga def lu tax nga rey ko mu ne dama koo rey ci alquran suñu borom mu ne alxabisaatu lil xabisin su dee yaay Aïcha ku sobewu la yonent bi continué sëy ak moom ba ba mu dee ci lalam kon ça veut dire que yonent bi ko sobewu la te ku wax yonent bi daa sobe dañ koy rey gis ngeen ala kulli xaal kon suñu borom alxabisaat jigéen ñu bon ña boo leen bëggee gis demal ca kër góor ñu bon ña góor yi njaalookat naankat bokkaalibkat mooy tolérer xam ne sama soxna si day njaaloo ba pare mu continuer nekk ak moom waaye wal alxabisuun lil xabisaat góor gu bon doon njaalookat kartabkat doxaankat jigéen jo bon ne moom rek mooy mën a tolérer continuer moom nekk cib sëy bu dee sëy ba fasoogul it su dee ne xam nga ko doo ci dugg abadan amul benn góor bu baax buy gis jigéen ab caga buy njaaloo mu naan da koy takk soxna benn jigéen bu baax it boo xam ne kii góor gu bon la gu sobewu la mu koy d'accord comme jëkkër suñu borom yàlla nag delluwaat ci tayibaat amma at-tayibaat li tayibin jigéen ñu sell ñu fegu aar seen awra amul benn jëkkër bi mën a ñëw ñu nangul ko lu dul jëkkër bu ñu yëg ne gëm na yàlla sell na waaye milliardaire bu gën a nekk milliardaire ak taar boo mën a yor soo ñëwoon labar si leen dañuy lànk waaye naka noonu itamit góor gu baax gu tey di wuti soxna Miss Monde su xamee ci moom ne kii kat bokkaaleb kat la njaaloob kat la dara du ko jaral mu takk ko loolee kon di lu ñuy war a jaay bàyyi xel suñu borom mu ne xurrima zalika alal mu'minin araam na ci jullit nga xam góorug njaaloo kat nga koy may sa doom bu jigéen yow jullit bu góor xaraam na ci yow nga gis jigéenu njaalookat bu tuubul nga koy takk comme soxna donte ne ni lenn ci mufassiruna yi daañ ko firee kaddu ya ñuy wax alxabisaat mooy kaddu yu ñaaw ma ngay génne lil xabisin ca gu ca nit ñu bon ña rek góor la ñu wala jigéen wal wal tayibaat kaddu yu teey ya ma ngay génne ca ñu teey ña ay góor la ñu am jigéen suñu borom nag mu ne ñii day ñu tey ñooñu muccal nañ leen ca lañ leen di wax ca mbokk jigéen góor gu tey gu maandu mënees na koo jiiñ njaaloo de yonent yàlla Muusa jiiñ nañ ko njaaloo ndax mas ngeen xam loolu yonent yàlla Muusa yaa ayyuhal lazina amanu laa takunu kal lazina azaw Muusa Muusa bani Israël lu nu jiiñ nañ ko ko ba jiiñ ko njaaloo benn jigéen bu bon gaa yi dem neexal ko mu ñëw ah man kat Muusa ah démb ñoo fanaan gaa yi ñëw waaw Moussa yow sa wax jeeg sa nangam yëpp kii nee na yéen a fanaan biig mu ne ah wax na dëgg mu ne waaw mu ne waaw baax na léegi dinañu may ma julli ñaar rakk ñaan yàlla soxna si na ko déet ñoo ma neexal xaalis rek waaye mu ngi noonu gis ngeen loolu ñu bàyyi ko xel bu baax kon man ñu la tuumaal waaye nag duñ la ca fekk mukk looloo tax suñu yaay Aïcha bañ ko tuumaale yàlla subhanahu wa taala ñoo setal ko Safwaan mañ ko doon dóoral li yàlla mujj dogal ndekete safwaan moom du góor sax dund na ba faatu takkul soxna ndax du góor bañ ko ba wax ji yegsee ci moom dafa dem ci Hassan ibnu Sabit nga xam ne nii ab jullit la woon comme moom ne rek tey mu ree ko mu wax mu ne man ba mu juddoo ba tey musuma tim jigéen yàlla ma boolewuma ci góor ñi amul luñ may tuumaale dul soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam safwaan boobu dafa mujj shahid fi sabilillah ci la ci la faatoo kon yàlla mu ne muccal naa ñooñu ci lañ doon wax danaa leen defal nag tuuma yooyu yëpp njëggal ak wërsëg wa tedd woo xam ne dañ leen xaar allaaxira suñu borom bàyyi loolu daa dina ay yéen jurit ñi ngalawaay yi bu kenn ci yéen dugg kër jàmbur lu dul mu yëglu bañ xam ne diw moo bëgg a dugg si su ko defee soo ñëwee da ngay fëggoo da ngay wax asalaamaaleykum waaye ala kulli xaal yëglul buñ ñee koo kan la nga ne man le Bilal Thiam ba ñu xam ne yow la su boobaa boo duggee nag nga doogu nuyoo tu sallimoo salaam ba nag du njaay du saar du jëng boo duggee kër jàmbur buñ la joxee ndigal boo ñëwee nuyu leen asalaamaaleykum ca la gën a gàtt lii suñu borom mu ne maa ngi leen koy fàttali di leen ko jàngal ngiree ngeen doon ñuy fàttaliku mi ngi noonu Cheikh Ousmane
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ni fa in lam tajidu fiha ahada su dee fekku leen ca kër ga kenn fala tadxuluha hatta yu'zana lakum bu leen fa dugg mukk lu dul ñu jox leen ndigal wa in qila lakum irji'u farji'u su dee dañ leen a nag dellu leen ngalawaay dellu leen huwa azka lakum looloo gën a sell ñeel leen wallahu bima taamaluuna alim seen borom yàlla nag li ngeen di jëf ko ko xam la laysa alaykum junaax du nekk ci yéen benn ngant an tadxulu buyutan gayra maskuna ngeen dugg ci dëkk ay kër yoo xam ne kenn dëkkewu ko fiha mataaun lakum mu ñeel leen fa njëfindukaay yu leen ñeel wallahu yaalamu ma tubduuna wa ma taktumuun yàlla day xam ne li ngeen di feeñal xam ne yit li nga xam ne yéen a ngi koy nëbb mi ngi noonu mbokk suñu borom nee na bu kenn dugg kër jàmbur lu dul da ngeen a yëglu ca mbokk bokk na ak mbaadoo la li nga xam ne suñu aaday maam bi ñëw rek këng këng këng ubbit bunt bi na jàmm ngeen fanaane waay déedéet mbokk nit ki bala ngaa dugg këram war naa xam ne yaa ngi dugg si ca suñu borom indil nañu matukaay yoo xam ne nii it moo ñu ko tàggatal ñu war ko bàyyi xel tey jii ñépp ñuy mag boo waxul ne am nañ portable it xaw ngaa mën a wax ni kër gu ne am na portable su ko defee su ma soxlaa Bilal Thiam bëggoo ñëw ci moom ngir soxla ma woo ko Bilal yaa ngi ci kër gi mun waaw xam naa ma ngi fay jaar ci kanam moo xam ne maa ngi ñëw loolee mbokk da ngay gis lu am solo la bu fekkoon muy génn mën na laa xaar bu fekkoon bëggul lu mu fekk ci kër ga mën na ko defar avant ngay ñëw loolu mooy yëglu bi gën a am solo bi am tey bu loolu lépp amul it boo ñëwee ci kër jàmbur fëggal soo fëggee a ñu wuyu la bu dee dañ laa wuyu ne la dugg sil xayroon bu dee wuyu wuñu la suñu borom subhanahu wa taala daf la wax dellul kii di Omar ibn Khattab ñëw na obay ñëw këram këng-këng salaamaaleykum kenn wuyuwul këng-këng salaamaaleykum ba ñetteel bi obay dellu Omar ubbee bunt bi gisu ko ñëw mu ne ko waaw yaa ngi fëgg ma ñëw dul ubbil fekk dem nga mu ne waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne su ngeen demee kër jaamburu ngeen fëgg ñetti yoon kenn wuyuwu leen dem leen dem leen Omar poño ko na ko kan moo la foo dégg yonent bi wax loolu fekk am na leen ci waa ansar ñu nekkoon foofu ñu ne ah Omar wax na dëgg de lii la ñu yonent bi jàngaloon mi ngi yoroon benn yar bu mu daan dumaa caamin yi jaarul yoon mu caw ko boppam ne wala Omar yaa ngi nekk ci marché yu dang-dangi ba su sunna yonent réer la kon mbokk loolu la waa kër gi am nañ droit ba ñu laa tontu salaamaaleykum kenn tontuwul salaamaaleykum kenn tontuwul demel ni bi suñu borom mu ne bu dee kenn nekkul ci kër gi bu fa dugg kenn nekkul kër jàmbur bu fa dugg waaw gaa yi kër jàmbur boo fa duggee ñu ne yaa fa dugg mu génn am lu fa réer du dañ ni diwee fa duggoon a waay mi nga noonu xam ne benn crime bu ñu ma doon nettali yàgg na fële ci France waa ji dafa ñëw fekk am na ku ñu rey ci kër gi moom mu dugg bi mu duggee rek gis crime bi génnaat dem am keneen ku doon ñëw gis ko biñ ne am na ku ñu rey mu ne diw moo fi génne jàpp nañ ko tëj ko ci lu yàgg yàlla moo def enquête yi poussé bañ mujj xam ne nekkati du moom kon kër jaamburu boo ñëwee kenn nekk fa bu fa dugg loolu lislaam wax beneen cas bi nag moom mooy bi nga xam ne mooy bu jafe la mooy ñëw nga ci kër gis këng-këng ñu ne koo kan la waa mën a bilal ci am bilal baal ñu de demal ba beneen ah boo ma te àllaaxira rek ngeen di lajawaat de waaye dugg ñëw moom abadan waaye mbokk loolu yàllaa ko jàngale lenn ci borom xam-xam yi jàppatuma turam waaye nee na 40 ans day maa ngi mébétoon dund aaye bi musuma ko dund ay dem ci kër mbokk julli rek bam na ma dellul ba nga xamee ne nii jëfe naa li yàlla wax yàlla ak yonente bu ñu dogalee jullit amul droit am tànn ci li yàlla dogal da ko war a gërëm da nga war a kontaan dem kër mbokkum jullit salaamaaleykum ak kooku diw waaw doo ñu baal rek ba beneen nga nga dem ak kontaante ndax yàlla ko dogal borom boobu nag subhanahu wa taala kon loolu la wax ci wàllu googee mu ne nag bu dee ne dëkkuwaay la yoo xam ne ay bagage ya fa nekk masalan pharmacie ba tey doo dem ca taxaw ci buntu pharmacie naan këng këng këng këng wala salaamaaleykum non parce que dañoo joxe ndigal d'avance boulangerie ba fépp place boo xam ne place publique la nit ñi dañ fay daje nga xam ne ndigal bi joxe nañ ko bil ma'ruf ñëpp xam nañ ne fii daje waay la su boobaa jarul ngay fëgg man ngaa ñëw dugg comme ne fa ñëpp di duggee borom bi nag ne li ngeen nëbb xam naa li ngeen denc li ngeen feeñal it xam naa ko mi ngi noonu Cheikh Ousmane ah ah anaam naam tayyib suñu borom yàlla teg ci li ñuy tuddee qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim boo ko aay bi boo ko doon jàngal ci quatre-vingt-dix pour cent ci jullit ay reetaan la leen di def moo tax gaa yi xam ne suñu bët yi yàlla dafa xaraamal ñu xool ci lu xaraam quatre-vingt-dix pour cent ci jullit ñi jàpp nañ ne loolu moom ay reetaan la waaye loolu la yàlla wax de yàlla wax yow yow jullit xamal ne suñu borom bët yi moo la ko may inna moo moo moo moo jaala lakum sama wala absaara wala afida qalilan ma tashkurun yàlla ñu may ay bët may ñu ñuy dégg mu ne ak néew li ngeen di sant yàlla am na sa moroomi jaam des millions des centaines de millions sax bu la waxee centaines de millions de par le monde yoo xam ne du ñu gis yow yàlla may la ngay gis suñu borom nag ne la lu la neex xoolal ci àdduna ci samay kawteef waaye benn benn yi ma xaraamal bul nekk di ko xool rawatina la nga xam ne moom mooy góori mooy jigéeni jàmbur bul nekk di xool la nga xam ne mooy jigéeni jàmbur loolooy nekk di xool ay jigéeni jàmbur rawatina natt bi yàlla nattoo ci télévision yu bon yi jigéen ñi nga xam ne dañ leen di tànn ñu mel ni ay jinne yow ñu bari ñi seen yàlla nattoo ñu nekk di leen seetaan ca film ya ci théâtre ya ci porno ya loolee day yegg yegg ci xaal boo xam ne nii da ngay deme deme deme dem ba boo wëlbati koo xool fàccaam du lu nuru dara yaa ngi dégg fitna bu bari lay jur loolee nga xam ne nii am na tamit loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax ci ni suñu borom nee na wattu leen seeni fay ngalawaay xamal ne njaaloo goo gis quatre-vingt-dix pour cent mi ngi jóge ci xool xool rek la jóge waaye bu doon góor heure boo gisee jigéen bu xaraam nga sajj say xef jigéen naka noonu njaaloo mbokk dafiy jóge xool mooy dem ci doomu aadama ba dugg ci biir xolam ba muur la nga xam ne mooy mooy xelam ba poussé ko mu def la nga xam ne moom lay def borom bi nag nee na looloo gën a sell ñeel leen heure boo gisee jigéen bu xaraam nga sajj say bët ca mbedd ma la ca télévision ba la ca album photo ya la heure boo xoolee jigéen bu xaram nga sajj say wet suñu borom nee na loolu moo gën ñe leen yàlla nag mooy xabiir naam man ngaa toog ak ay nit di sàcc di xool jabari jaambur doomi jaambur ila axiri ñoom xamuñu ci dara mais yàlla moom xam ne lépp kon mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ولا يبدين زينتهن
jazakumullahu xayra suñu boroom jalla wa ala mu ni wa qul lil mu'minat yow yonent bi waxal jigéen ñi gëm ñi yaxdudna min absaarihinna nañuy sajj ci seen gis ya wa yaxfazna furujahunna ci wattu seen payya wala yubdiina zinatahun bu ñuy feeñal mukk seen taar ya illa ma zahara minha lu dul la nga xam ne nii da caa feeñ wal yadribna bi xumrihinna ngalawaay nañuy dóor ca seen ximaar ya mooy li ñuy muuroo ala juyubihinna nañ koy dóor ca seen baatu mbubb ya fa mu génne wala yubdina zinatahunna bu ñu feeñal mukk seen taar illa li buulatihinna lu dul ñeel seeni jëkkër aw abai buulatihinna wala seen bàyyi jëkkër aw abai naam aw abai bu bu aw abaihinna wala seen bàyyi bopp aw abai buulatihinna wala seen bàyyi jëkkër aw abnaihinna wala seen doomi bopp aw abnai buulatihinna wala seen doomi jëkkër aw ixwaanihinna wala ña nga xam ne seeni càmmiñ lañu aw bani ixwaanihinna wala seen doomi càmmiñ ya aw bani axawaatihinna wala seen doomi jigéen ña muy sœur ya aw nisaaihinna wala seeni jigéen comme ñoom wala boog jigéeni julit ña aw ma malakat aymaanuhunna wala la nga xam ne moom na ko seeni ndeyjoor muy seeni jaam awi taabiina gayri ulil irbati min rijal wala boog ñi nga xam ne dañuy toppe ca amuñu la nga xam ne mooy kattanu dikkal jigéen muy ulil irba min rijal ca góor ña awi tifli lazina lam yazharu ala awrati nisa ak ndaw ñi nga xam ne ñoom day nekk ñu di am kattan ci awre jigéen wala yadribna ngalawaay bu ñuy dóor bi arjulihinna ci seeni tànk li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna ngir ñuy xam la nga xam ne nëbb nañ ko ci seen taar wa tuubu ila allahi jamia tuub leen dem ci yàlla mboole seen a ayuhal muminuun yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm laallakum tuflihun ngir ngeen doon ñuy texe mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ni yow yonent bi gannaaw ba nga waxee góor ñi waxal ak jigéeni xeet bi nañuy sajj seeni bët ci heure bu ñu jàkkaarloog lu xaraam ca mbokk niñ leen ko waxe sànq bët ci li gën a dangereux luy jeexital ci xol la loolu moo tax ba góor ak jigéen ku ne war cee bàyyi xel la ma doon wax sànq ca góor ña suñu jigéen ñi it jàkkaarloog télévision yi des heures et des heures mbër yi nga xam ne naan nañ fonde bana fàcc di fecc seen kanam artistes yi nga xam ne nii dañuy nelaw ba heure bu leen neex ci des millionnaires façon style bu ne dañ koy def loolee mbokk soxna yi buñ ko tàmmee di ko seetaan guddeeg bëccëg seen jëkkëri bopp da ngay gis na dañ leen daal di soof wala fii dañu naan gars yi dañoo dajëg bukki ku waaw bukki noo def ba sa soxna si bëgg la mu ne bu fa kenn dem rek mu ne bu fa kenn dem rek bu gisul kenn ku dul man daal dina ma bëgg jeex na waaye loolu nag mbokk la ñu war a ngeen bàyyi xel wallahi aka bari aka bari ci imam yi may déglu ci dëkk arab ak lenn loo xam ne am nañu ci jokk ak ñun ay jigéen yuy jàmbat loolu seeni jëkkër ci télévision bi la ñuy fanaan ci film porno faaleetuñu leen na am mbokk loolu boo ko defee sa soxna dootu la safati dara ñu bàyyi xelit ci ni jigéen dañ koo sant mu muur ay awraam suturlu loolu it moo tax ba lee yàlla ne woon góor bul jàkkaarloog jigéen i jàmbur ci bànneexoo tey nga gis ñu jël caméraman mu ñëw tiim seen soxna yi di leen filmi ñu toilettu ba mel na kuy sëy caméra boobu ñu koy tourner partout ñu koy xool dans le monde mi ngi noonu album yi naka noonu mbokk yooyu aada la yu xew boo laajee sunu mag ñi xam ni boo dellu woon trente ans quarante ans ci gannaaw ak bëri woon ay mariage ak yépp mais yooyu yii xew nii lu ci bari xewu fa woon ñu bàyyi ko xel bu baax suñu borom yàlla mu ne yéen jigéen ñi wattu leen seen pay yi nu ñu def wattu ko muy téye leen seeni bët bépp jigéen bu téye bëtam wattu payam gannaaw ba nag li nga xam ne mooy seen taar ngalawaay taar ba bu leen ko feeñal lu dul ñeel ñii muy bëgg a wax ña ca jiitu mooy seen jëkkër jëkkër amul frontière digganteem ak jabaram jabar amul frontière digganteem ak jëkkëram jëkkër moo am droit gis lépp ci jabaram amma à part jëkkër suñu borom yàlla subhanahu wa taala am na ñu mu lim ñooñu lan lañ am droit gis ci yow mooy la doon ah li ñuy tuddee takkaayu aada ci l'islam mooy fi ziina di tege commencé mooy frère bi nga bokkoon ndey ak baay ak sa baay ak say doom li nga xam ne moom lañ mën a gis ci yow mooy sa kaw ween yi nga xam ne moo tekkee chaîne fi lay tege sa kaw ween ak sa loos sa bopp yooyu yépp liste bi muy bëgg a lim am nañ droit gis ko la nga xam ne mooy si digg loxo bi fii ca kaw conc ba ndax kaw conc bi dañ ci daan takk ay ay ay takkaay kon digg loxo bi nii fi romb foqtaan bi tuuti jëm suuf ñii muy bëgg a lim ñépp am nañ droit gis ko naka noonu seen digg yeel jëm suuf dañ ci naar yi boo xoolee naar yi nekk mu sax am na ay lam yu ñuy takk yooyee kon digg yeel bi jëm suuf ñii may bëgg a lim loolu lañu am droit gis ci yow waaye sa baay amul droit gis sa awra say frère amuñu droit di jàkkaarloog say ween di jàkkaarloog say pooc comme ni nga xam ne noonu la xëyee suñu jamonoy tey ji abadan suñu borom yàlla subhanahu wa taala kon loolu la wax mu ne bu ñu wone seen taar lu dul la ca feeñ la ca feeñ borom xam-xam yi am nañ ci yeex ci laaf benn mooy yére ya nga xam ne mu ne su ko nëbb wala loo xamee ni nii ngelaw moo naaw wane ko waaye jigéen buy génn dafa war a muur yaramam yépp loolee mbokk am na borom xam-xam yoo xam ne loolu la ñu wax soo demoon tey Arabie saoudite da ngay gis jigéen ñi ñépp dañuy muur seeni kanam seen borom xam-xam yépp loolu la ñuy wax. jigéen génn fa muurul kanamam loolu déli la amma nag yeneen borom xam-xam yi ñoom li ñu gis mooy ila ma zahara minha dañuy wéral hadis ba yonente bi alayhi salaam waxoon asma ne ko jigéen bu xisee ba gis baax kenn amul droit gisati ci moom lu dul xar kanamam nii mooy xar kanamam bi ngay li ngay jàpp fi ngay raxas ak sa fi ngay takk montre jëm suuf lii lañu am droit gis ci yow donte ni ni fu ñu yàlla defee ñu koy tafsir it daañ fàttaliku wax boo xam ne tubaab yi dañ koy wax tubaab yi dañ naan dans le pays des aveugles le borgne est roi heure boo demee ci dëkk ñëpp gumba suñu amee borom benn bët dañ koy fal buur kon it ñun jigéen ñi nga xam ne dañuy muuru di génne seen kanam ngalawaay ay buur lañu félicitation ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañ dund ba mboolem jigéeni sénégalais yi di muuru bàyyi seen kanam yaa ngi dégg loolu mbokk mi ngi noonu waaye xamal ni même bu dee rox ba am na it bul fàtte mukk ne muru ko moo gën looloo tax bul sa bu la seytaane ma ne mukk nga gis jigéen ñi xijaab ba def ximaar nga leen di critiquer c'est très grave soxna yonent bi noonu lañ doon solo mi ngi noonu ki gën a défendre gën a jàppanteeg borom xar xam-xami Arabie saoudite yi mooy Cheikh Nasruddin Albani bokk na ci ñi gën a défendre na jigéen am na droit génn kanamam ay doomam nag dañ doon muur seen kanam ba benn waay bind benn téere ne xoolal cheikh bi day lam gëm ak la muy wax nit ñi bokkul mu ne déet waxoo dëgg la ma wax nit ñi mooy muur kanam gi moo gën waaye génn kanam dagan na samay doom nag ak samay soxna buñ jëlee la gën du ma leen ko teree am déet loolu ñu bàyyi ci xel bu baax kon suñu borom mu ne nañuy bu nañ bu ñu génne lu dul la ca feeñ liste bi ñan la borom bi ne benn mooy ñi nga xam ne nii mooy seen i baay mi ngi noonu mooy seen jëkkër wala boog seen bàyyi jëkkër sëy si nga ci kër gi kii mooy sa bàyyi jëkkër vraiment toujours ngay muuru ci kanamam loolu dafa jafe wala boog seen doomi jëkkër sëy si nga ci kër gi fekk nga sa jëkkër amoon na ay doom doom yooyee juróo leen waaye ñooñu mën nga leen won sa taar comme sa doomi bopp gannaaw bay tamit say frère ak seeni doom say sœur ak seeni doom ñii ñëpp mën nga leen a won la nga xam ne mooy say taar mu des la ñuy tuddee nisaihinna nisaihinna borom xam-xam yi am nañ ci wuute am nañu ne mbooli mi jigéen jigéen mën na ko won li bàyyam di gis ci moom donte ne am nañu ne nisaihinna yàllaa ngi ci namm jigéeni jullit ndax jigéeni yéeféer bu gisee jigéen bu jullit ak taaram day dem di ko nettali ca loolu mbokk ca yonent bi bu fekke woon photo caméra xamul muy def daana wax ne kenn ci yéen bu mu dem di nataal jigéenu jàmbur ba ki muy waxal mel ni ne mi ngi koy gis gis ngeen kenn ci yéen bu mu dem di melal jigéenu jàmbur cheet diw doomu jigéen ni mu rafete dafa njool xees na ba mel ni mi ngi koy gis mu yonent bi bul def loolu waaw gars yi tey photo beeg caméra bi nag moom lu muy def moom moom mi ngi noonu su ko defee kon nisaihinna am na ñu ni mooy jigéenu julit waaye jigéenu chrétien yéeféer amul droit gis taru jigéen donte ne nag am na ñu ne jigéen ñëpp la suñu borom teg ci ni jaam yi ngeen yéen a xam ne yéen a ko moom sa jaamu bopp suñu borom it teg ci ni góor ñi nga xam ne mënuñoo dikkal jigéen ñëpp xam li ne ñi mooy li wolof di wax yoom ngir ndaw ñi dégg li may bëgg a wax ñooñu bu ñu nekkee ak ci kër gi mën nañoo jaxasoo jigéen ñi ndax mënuñu ci ñoom dara looloo tax suñu mbokk naar yi yal na yàlla jéggal ñu jéggal leen ñu bari ci ñoom daañ tàpp seeni jaam comme ni ñuy tàppe xar yi mbokk mu mu lu metti lool su ko defee dañ koy tàpp rek bàyyi ko ci biir jigéen ñi ndax xam nañ ne moom mënulul jigéen ñi dara gannaaw ba suñu borom mu ne ndaw ñi nga xam ne amaguñu kattan ci mën a sëy ca loolee mbokk nañu xam ne génération day day changer génération day changer ndaw yu jëkk ya daa nga gis ku ci daan dem ba am quinze ans dix-huit ans xelam sax du nekk ci sëy mën naa fala nag jigéen ba suba xelam sax du ci nekk mu safaanoog suñu ndawi tey yi nga xam ne sëy bu ñuy jàng wax ak a dox sëy la ñuy jàkkaar lool bus bu nañu jël ci dose mbokk seen doom yi ngeen bàyyi kër ga ñaati yoon lañu gis góor ak jigéen jaxasoo ci télévision bi ñaati yoon loolu moo tax ba mas naa gis benn procès en Allemagne ñaari xale yu góor neuf ans neuf ans lañu am téye benn xale bu jigéen bu am six ans ba yàq ko yegg ci moom ci neuf ans lañu am gis ngeen kon loolu day wane ne tamit jamono day changé ala kulli xaal bépp xale boo xam ne gis nañ ci moom ak yeewute même bu amee dix ans jëm douze ans yow jigéen war ngaa moytu di ko won yenn ci say taar gannaaw ba suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag bi mu waxee ñii ñëpp mu delluwaat jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam jigéen ñi dañ naan takk ay lam ci seeni tànk comme naari mauritanien yi da ngeen koy gis ba léegi ñu takk ay lam yu dijj seeni tànk islam daf ne jigéen na muur tànkam te loolu it mbokk julit xamal ne jigéen daa war a muur ay tànkam la ma leen wax sànq li yonent bi maye woon mooy kanam gi ak loxo daa war a muur tànkam léegi nag lu ñu daan def su ñëwee ba romb benn mbooloo góor dëgg seen tànk mu ne keleng keleng ko defee lam yi yëngatu suñu borom ne yéen jigéen ñi jullit ñi bu leen defeti loolu di attirer attention góor ñi ci yéen mbokk loolu lañ defoon génération dem génération dem ba tubaab bi indil ñu coquette wa ma adraka mal coquette yaa ngi dégg ah coquette bi xam ngeen coquette day mi ngi noonu jigéen ñi jóge fële kakaj kakaj kakaj kakaj bu la dondee cent mètres nga dégg ko mu ñëw kañ ah muy dem mbokk loolu tubaab bi ñu ko fi indil yaa ngi dégg waxuma danger yi ca nekk ci seen wàllu wérgi yaram ci accident yi mën a jur ala kulli xaal nañu xam ni jigéeni julit buy romb góoru jugit góor yi mbooloo ju dafa war a discrète kenn wurul yëg ci moom dara mu am nag lu gën a garaaw coquette wala yaasu billah mooy fer yi ñuy takk seeni ndigg ñu bari ci ñoom bu ñu dox mu naan keseng keseng keseng mbokk loolu ba yàlla di xaraamal ñu wone ne ay lam mi ngi ca suufu yeel ba kiy yëgle ne maa ngi takk li sama ndigg nag loolu moo gën a garaaw téeméer yoon mbokk kon lii la ñu suñu borom yàlla di wax lan mooy résultat yépp lan la ñu yóbbu lii yépp mbokk barrage la contre njaaloo nga xam ne moom la saar bi ubbee te société bépp boo xam ne laap na ci njaaloo wallahi société bu leere ngoog société bu am jukku yu kawee ngoog waaye bépp société boo xam ne njaaloo dafa tasaaroo doomi njaaloo yu tasaaroo seen biir société bu lënd mi ngi noonu société bu ker sa jeexe ngi noonu loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom nag tëjee ko ni ngallawaay tuub leen yéen jullit ñi mboole seen tuub leen mboole seen su ngeen bëggee texe looloo tax mbokk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daana wax e yéen nit ñi de leen tuub dellu ci yàlla man de bés bu nekk danaa jéggulu yàlla di tuub ci moom lu ëpp téeméeri yoon ngalla waaye dee leen baril istighfar dee leen baril tuub astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh dee leen ko baril di ko wax amul lenn lu mën a gaaw a indi xéewalu yàlla ci yow lu tol ne lënkaloo ak istixfaar amul lu la gën a mën a jegeel yàlla lu tol ne lënkoo ak istixfaar lu gën a mën a yëkkati say daraja lu tol ne ngay foo toll di lënkoog istixfaar rawatina yow mi nekk ci ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu mbi- mbiri xaalis la mbiri feebar la mbiri xat-xat la ngal way baril di tuub di istixfaar loolu la ñu suñu borom yàlla wax la'allakum tuflihun amul kenn ku koy sax muy jóge ci xolam lu dul balaa yàgg rek yàlla dana la may texe àdduna may la texe alaxira yàlla na yàlla wërsëgal ñu tuub dellu ci moom tuub gu sell mu nangal ñu suñu tuub may ñu alfalaax fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain xam naa daan jégglu wadde parce que aaya bi dafa xaw a gudd ñu ah ah ah waaw waaw te xool bi noonu.
Mhm.
moom góor mu xool xarakkaramu jigéen maanaam xoolu bànneex wala gis nga xool ko nii rek loolu yàlla xaram dafa am gis ak xool kii day gis ak kuy xool bokkul waa ji soxna si nga xam ne da nga koo gis gis nga kanamam su wax jotee da nga war a sajj sa gis mu sajj gisam ngeen wax li ngeen di wax bokkul ak nag nekk toog di xool la nga xam ne mooy xoolu bànneex waaye jëmmi gis ko loolee moom da ngay gis ne dara nekku ci jigéen nga xool kanamam mu xool sa kanam fii yëg nekkul ci loo xam ne ni ak bànneex la amma nag jàkkaarloo ak jigéeni jaambur di wax muy wax la chaque ku ne loolu xam ne day jur bakkaar looloo tax yonent bi alayhi salaam daan wax naan la tutbi in nazarata nazara bul nekk di tegale xool ci kaw xool lu jëkk li may nañ la ko waaye beneen bi day dellu ci yow mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw naam kon xanaa ñu ñu lebbi ci des rek ba suba insha allah barakallahu fiikum